أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ñoo ngi àndaat ak yéen ci téere borom bi tabaraka wa taala ñu ngi toll ci suura ala imran samedi passé ñu ngi jëloon ñaari aaya tey tamit ci kattanu borom bi tabaraka wa taala ñu ngi jëlaat yeneen ñaari aaya yi ci topp muy aaya 76 ak aaya 77 ñaari aaya yi nekk sunu kanam borom bi subhanahu wa taala daf ñi ciy jàngal azamu zamb man yaxuunu ahda allahi min ajli lmaali na bàkkaar bu rëy la ci yàlla tabaraka wa taala kuy war borom bi te dara taxul ngay war lu dul alal man yaxuunu ahda allahi limaza min ajalil maali di war contrat pacte bi nga siñanteeg sa borom lan moo tax ngay war sa borom ndax alalu àdduna wallahi mbokk yi tomb bi moo tere tey jullit ñi nekk ay jullit jullit yu bare bari ñu ngi frenkulaayu ci ay fen ci ay caaxaan loo xam ne dara du ci dëgg waaye lan moo tax alalu àdduna da ngay gis jullit bu nangu tey rey sa mbokk jullit dinaa leen jox benn misaal bu ndaw rek diggante balaa ñuy woor ak bi ñu wooree ak léegi Égypte armée bi rey na un million musulman ci ñetti weer yi ñu nekk balaa ñuy woor bi ñu wooree ak bi ñuy tabaski un million musulman un million laa wax musulman rey nañ leen te ñooñu rey waxuma ay jullitu folo falaade ay jullit xaqan yoo xam ne dañu ne ashaab yurid char allah tatbiq char allah peuple bi ñoo ñooy laaj attewoo diine yàlla peuple bi ñooy laaj attewoo sharia ñu ne fetal leen leen yemuñ ci rey nit ñi ñenn ñi dañoo lakk ay jàkk xoolal jullit te ay ñiy def loolu bu ñu la waxoon seen tur yi sa yaram day daw lu ko waral parce que ay projet alal yu ñu leen nangoo jox rek moo tax ñu nangoo rey moo tax yeneen yàlla musal ci alal tey alal tax na ñu bëri war yàlla war diine war seen peuple ñaata tey fii ci ñun ay nit yu war peuple bi ngir lan ngir alalu àdduna te alal joo xam ne ndeysaan da ngay dee bàyyi ko fi kër yi lu ñu bari bari benn kër rek ngay fanaan néeg yi lu ñu bari bari benn néeg ngay tëdd wala lal yi lu ñu bari bari bari benn lal ngay tëdd matla bi lu mu yaatu yaatu yaatu benn espace bu ndaw ngay tëdd kan ci ñun fii toog moo mun a fees duubul li xanaa doo ci tëdd ñu lay gonfale bu ñu indi woon ngelaw sax def ko ci sa ginnaaw gi di nga di la gonfale da ngay toj mais doo fees lal bi yére yi lu ñu bari bari benn yére ngay sol oto yi lu mu bari bari benn oto ngay war da ngay gis koo xam ne li mu yor ci oto buñ ko doon lakk fii ba suba du jeex loolu lépp fan la ko jële ngir war yàlla tabaraka wa taala kon sunu darsu tey aaye bi njëkk bi ñu yàlla di jàngal mooy bakkaar bu rëy ci koo xam ne dafa war yàlla ngir alalu aduna wa kazalika man yaxlifu kaadiban li ajlil maali ak koo xam ne day waat te moo ko gën a xam ne waat yi muy waat feni kese la waaye lan moo tax muy waat ngir alalu àdduna ngir intérêt àdduna ngir ay bien ngir ngir ngir ngir mbokk jullit yi ñaata nit tey ngeen xam yoo xam ne wax billaahi wallahi taalaahi du dara ci ñoom te leer na leen nit ñi ne ñii dañuy fen ñuñ sax ñooy ñu tane ñu baax ñi waaye ñeneen ñi moom dañuy waat ci nit am na ñoo xam ne sax dañ ne ku leen waatal ci nit ñu gëm ko man de ku ma waatal ci diw ma gëm ko waat ci ay fen ñaata jullit ñoo koy def tey te xam ngeen ne waat ci jaamu yàlla yi la bokk bal quran daf ci wax yonent bi wax ci ijma wax ci yàlla ne boo waatee te naroo koo def lan mooy sart da ngay kafaara da ngay kafaara xam ngeen ne ñi ëpp xam-xam ci lislaam dañ leen a tuddee al abadala al abadala tey sax fàtte naa sama kado yi ndax damaa yàkkamti ndax maa ngi doog a wàcc moo dama fàtte kado yi waaye ñu trouvé insha allah maare dinaa leen indil seen kado al abadala ñaata lañ al abadala ñoo ñu naan abadala ñaata lañ al abadala ñoo ñuy woowee abdallah te ñu am xam-xam bëri lool ba gaa yi di leen tuddee al abadala ñaata lañ waaw kon nañ ko tëb mu nekk benn kado bu ñu tëb ñoo ñeent bu ñu leen boolee ñu ne ñeent lañ ñu ne nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg nga waat ci yàlla fekk ay fen la moo gën nga waat ci nit nga wax dëgg ñu ne leen lu tax ñu ne waat ci yàlla fen bàkkaar la waat ci nit wax dëgg shirk la te shirk yàlla du ko baale inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi waaye wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kon nga waat ci yàlla nga fen moo gën nga waat ci nit wax dëgg parce que boo waatee ci nit wax dëgg yàlla du la baal parce que da ngaa bokkaale xoolal ñun tey waat xanaa ku ñëw ci Sénégal ne waat ci nit ba ba bàkkaar la moom dañ naan kii moo mën a fen kenn du la gëm ndax nit ñi li ñu gëm mooy waat ci nit am na ñoo xam ne bu ñu waatul ci nit du dara nga waatal leen ci nit moo leen gënal nga waatal leen ci yàlla bu demee nag léegi ba waat di fen nekk pas-pasu nit ñi sunu borom subhanahu wa taala nee na bàkkaar gënta rëy nga waat fekk da ngay fen wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man xalafa ala yaminin yastahiqu biha maalan fa huwa biha faajir laqiya allah wa huwa alayhi gadbaan yonent bi nee na képp ku waat ci yàlla fekk ba ngay waat da ngay fen yonent bi nee na kàccoor nga te ëllëg wallahi di nga dajeeg yàlla fekk yàlla mi ngi la mere képp ku waat ci yàlla fekk da ngay fen yonent bi nee na yow kàccoor nga waaye yonent bi nee na bu wee boo nga préparé parce que ëllëg booy dajeeg yàlla day fekk yàlla mi ngi la mere ku dajeeg yàlla fekk yàlla mi ngi la mere foo jëm tey li doy waar mooy nit ñi bu ñu la nee diw mere na la nga nga tiit sa papa mere na la nooy def ngi tiit sa papa dañ lay xaar mere na la de mere na la lool fekkee mag la day xalaat waaw man day commencé di xalaat di fen yan pexe laay tëral ba génn ci mer bi pour rëcc wala nan laay lan laay waxee ak moom tey bërëj bu dee sa yaay la kazalik bu dee xale bu ndaw la nag ñu ne la sa sa sa papa mere na la boo ko dee xalaat yan dóor lañ mën a dóor tey bu doon kuy liggéey la ñu ne la sa chef daf la mere est-ce que yoo xam nga ne chef bi daf la mere looy xalaat man maa duñ ma daax da ngay commencé dem di sangoo ay saafara di takk ay béjjén boo gëmul yàlla waa léegi kuñ ne yàlla mere na la da ngay dégg Sénégal kuñ ne dañ lay bàyyi ak yàlla mu ne ah kon de mbir mi ah kon de baax na bari nga ak sama xarit te xarit boo xamante ne yow nekkoo ci li ko neex kon foog ñu defaraat sénégalais yi foog ñu defaraat suñu bopp mbokk yi li ñu alak mooy jàpp ne alxuraan bi dafa ñëw rek pour ñu koy jàng tajwid ko téere barkeelu wala ñu koy jàng ni dee wala ni tiit wala wala wala jàpp ne li tardeel jullit yi mooy jàpp bañ a def téere bi seen kanam téere bi moo ñëw pour baaxal suñu dund wallahi lii ñuy jàng ci suñu école yii bu yeboo ñu yóbbu nit ñi fu nekk du baax de du baax du baax du mës a baax parce que lii baaxal nit nekkul ci école yi ci alxuraan bii la nekk lii tax nit ñi gëm yàlla bàyyi fen bañ a wor wor wala wor tey wor wor semaine bi dama am xale bu ma dëkkal dafa jox benn waaye xaalis bëri waaye nag da koy yóbbu Italie biñ ne suba la tabaski waa ji woo ko téléphone ne ko dama bëgg nga tabaski jee Italie kontaan waa ji yóbbu ko ba benn kër Dakar teg ko fa dem yoonam ba tabaski passé mu ñëw ñibbisi da nga ne toog ana waaja xamul gisu ko dégg waa ji dem naa xaalis wala xoola war boobu xoola tas yaakaar boobu xoola mbon googu ah ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mu ngi ci biir société bi yéen a ma ko gën a xam parce que moom la ñuy dund Sénégal lu tax mënut a dem képp ku ngeen wóorul da leen di war moo tax du dem sëriñ yi dañuy waraate kilifa diine yi di waraate xaalis rek ñoom ñëpp xaalis ku ci indil xaalis daal mu régler sa problème ñoom da ngeen yàlla soppi kon incha allah doomu ndey ñaar yooyu dafa bokk tey ci li ñuy jëlee ci aaya yi nga xam ne moom la ñuy jël tey mooy aaya 77 ak aaya 78 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلى من أوفى بأهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بأهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم برم بني بلا أهكي دقلة دقلة موس man képp koo xam ne aw faa dafa matal respecté ñàkk a wor bi ahadihi ci dig bu mu digganteeg nit wala dig bu mu digganteeg yàlla wala dig bu mu digganteeg yonant wala diineem mu respecté ko mu jaral ko dee mu jaral ko lu ne mu bañ a wor yemul ci respecté ko waaye wattaqa mu moytu yàlla ci loolu allahu akbar wattaqa bala man awfa bi ahdihi wattaqa képp ku respecté loolu ba pare moytu moytu wor moytu yàlla fa inna allaha naka yàlla yuhibbul muttaqin yàlla bëgg na ñi ko ragal gis nga kon nit war na góorgóorlu kéem talayil kàttanam mu bañ a wor même boo ci des nga dee ci ngor nga dee ci jom nga dee ci diine moo gën nga dee yàgg yàgg da ngay dee xam nga nit ñi lu ñuy fàtte mooy dee boo amee da ngay dee boo ñàkkee boo wéree dee boo boo amee dee boo noo mën tamal da ngay dee waaye nga dee ci ngor ak jom moo gën nga dee ci gàcce néew boo xam ne ñi la tiim ñëpp dañu lay jéppi ah warkat bu bon bii malaaka yi di la diri jëppi la nga ñu fi ñu lay suuleeg fi ñu lay dugalee safara nekk benn suñ borom meral ak nga dee ci ngor nga dee ci tawxiid dee ci pas-pas ah xoolal tey société bi li tax mu mel nii mooy Sénégal dañ leen wor dañ leen a wor dugal leen ci musib bi may ñëw léegi-léegi marché jeudi laa jógee am nañu fa dëkk mun nañ maa seede lu fa xew ah sàngara si sama école laa nekk mooy xeeñ te wallahi fenuma wallahi maa gis ay nit yu man di jëm wallahi te malaaka yaa ngi sama mbag xoola diine boobu diine boo xam dañ laa gëmloo sàngara day wàññi leer du dara naan leen ko ndax seen leer wàññeeku loolu ban diine la diine boo xam dañ laa gëmloo lu la neex def da ngay dugg àjjana loolu ban diine la benn waay dafa aji woon màgg aj bii may wax ak yéen démb laa dem ziyaare ji ko am na ku ma àndaloon yaakaar naa mu ngi fi ci jumaa ji wala bu ñëwul mu ngi ci yoon bi pour ma seedeloo ko fekke na ko ah bi ñu demee seede ko xam bi ñu demee si ziyaare xamul mu wax dafa ñëw mu ne waaw ñun ñoo nekk ci diine wala waa Mbaaka ñoo nekk ci diine loolu la ma laaj ma ne ko lu xew mu ne ma waat naa ci Yàlla lépp lu ma gis foofu gisuma ko fii lu ma ko laaj mu ne ma amul ma ne ko waaw ndax foofu am nay takk rajo di yuuxu mu ne ma dem naa foofu gisuma ko mu ne ma yi ñuy def fii suñu jàkk yi dara amu fa mu jékki-jékki ne ma wallahi ñoo ñoo nekk ci dëgg mu ne ma lii ma ne ko ah mu ne ma lépp lu ma nekkoon bàyyi naa ko maa ngi ci yéen wallahi mbokk mi ma àndoon war nga dina ñëw parce que gis naa léegi rakkam nee na mu ngi ñëw nga xam ne ñu nekkuñ ci dara dañuy fo rek dañuy fo rek diine fo wala diine fo diine caaxaan lan moo tax nag loolu mooy sénégalais yi dañ leen a wor parce que waxuñu leen dëgg wan leen lu kenn xamul ay caaxaan ba pare nit ñi defe ne loolu dëgg la fekk du dëgg war weesuwul loolu nga yaakaar na yow jullit nga tëddoo jullit ngay langar-langar yi ñu jàkk yi di góorgóorlu di yeewu fajar di julli ñi te yow doo jullit ak doy waar jullit yàlla yi nan leen wax dëgg ñu bàyyi leen ñu jaamu yàlla suñ dee dugg àjjana yàlla gërëm leen mais ñu leen di nax nax leen ci wàllu adduna nax leen ci wàllu diine wala réew mi nu mu mel chaque jour day gën a métti léegi naa tiwo bi waroon pare sax sax fa tey sax parewul tiwo sax mënuñu ko tiwo mun naa nañu woo waaw waa France ñu dimbali ñu lépp nag lu ko waral mooy jàpp ne ñii ñii wax dëgg la ñii duñu fen ah ñii lu ñu wax noonu la te diine yàlla bi lu mu wax mooy noonu diine bi lu mu wax mooy noonu waaye yàlla waxul nit ñi ñu xool leen diine bi la diine diine yàlla bi mooy alxuraan bi wallahi feeg ñu ngi wuuteeg alxuraan bi nekkuñ ci diine feeg ñu ngi wuuteeg alxuraan parce que alxuraan bi mooy waxu yàlla yàlla li mu bëgg ñu dundee fii la ko def fii la ko wax ñun buñ bàyyee lii nag ne dinañ baax duñ baax yàlla ne aha kay balaa aha kay dëgg la de man képp koo xam ne ci yéen aw faa dafa respecté matal lan bi ahdi laahi digu yàlla li mu wax ak yàlla mu respecté ko wattu ko waaye jooju yemul ci loolu waaye wattaqaamu mooy tandiku kàmb yiñ koy gasal ba mu tëb ko bañ cee dugg mu mooy tandiku dajeeg yàlla yàlla mele ko mu mooy tandiku war jullit yi waaye jooju na yëg ne fa inna allaha naka yàlla yuhibbu bëgg na almuttaqiin ñi ko ragal benn borom xam-xam bu mag bu tudd Saïd Hawa rahimahullah dafay wax bu ngeen jàngee alxuraan bàyyi leen xel aaya yi fu mu jeexee aaya bi fan la jeexee yàlla nee na bëgg naa ñi ma ragal fa inna allah yuhibbul muttaqin yàlla bëgg na ñi ko ragal kon fii ku bëgg yàlla bëgg la nooy def ah suñ ne woon Macky Sall bëgg na ñii liggéey wala bëgg na ñii def sàngam wala bëgg na ñii def nàngam ñun nu ñuy def dañuy fexe mu bëgg nu dañuy dem defi loolu pour mu bëgg nu yàlla bu fa bu waxee ñi mel nàngam bëgg naa leen kon ku bëgg yàlla bëgg la nooy def da ngay noppalu da ngay dem def loolu rek nga nekk xaritu yàlla yàlla bëgg la fa inna laa yuhibbu man yàlla waxul ñuy julli waxul ñuy woor waxul ñuy joxe azaka waxul ñuy aji màkk fa inna allaha yuhibbul muttaqin yàlla nee na bëgg naa ñi ma ragal ñi may moytandiku bëgg naa leen ñii def samay santaane bàyyi samay tere ñooñu bëgg naa leen kon nan góorgóorlu yàlla bëgg nu mu ne inna allazina gaa ñi nga xam ne du loolu moo ci tegu yashtaruuna ñooy jënde bi ahdillaahi digu yàlla ah bi ahdillah gaa yi nga xam ne ñooy changé di jënde gis nga de baat bi yàlla yashtaruna la wax ñooy jënde yàlla ne nangam nga ni waaw yàlla lii la wax de waaye nag wax dëgg yàlla ah man xam naa lii la yàlla wax mais xam nga dëkk bi kenn mënu fee def loolu parce que xam nga dañ leen ah waaw loolu la yàlla wax mais ñun dañ laa bëggoon jox nangam nga xool loolu muy lu takk lu bari lool ah ndeysaan ni bal am bun baura defoon bal am yaa ngeen ko bal am bun baura mu nekk waayu yàlla nitu yàlla yonent yàlla Moussa war a xeex ak ay yéeféer yéeféer yi ne nañ dem ci ban bal am bu ñaanee yàlla yàlla dina nu nangul gaa yi ñëw ne ko dañoo bëgg dañuy xeex ak Moussa dañoo bëgg nga ñaanal nu yàlla ñu gañee Moussa mu ne waaye yéen xanaa da ngeen dof man may ko gëm yàlla Moussa di julit may julit ah ngeen bëgg ma ñaanal sama mbokku julit alkade yéen ma ñaanal leen yéen yéeféer yi loolu la gars yi daal dem dajale or yu bari ak xaalis bari ñëw ne ah ñun de dañoo ñëw ñëwoon pour nga ñaan mu ne lan laa waxoon dem ñu ne ah dafa am lu ñu indaale woon ma xool ah waa xaar leen ma xalaat teg leen ngeen dem ma xalaat gis nga gis nga gis nga alalu àdduna gaa yi dem yàlla yónni malaaka malaaka bi feeñu ko mu ne ko bul ñaan de bul ñaan Musaa de yow xam nga ah est-ce que lii du gént rek dama gént rek yàlla terew ma dara dama gént gis nga mu yeew xool or bi xaalis mu bëri gaa yi ñëw ne ko foo toll ah waaw ah ko garawul naa ko jéngu rek eh naa ko jéngu ñaari armée yi jàkkaarloo mu yëg ci montagne bi tim ci Moussa ne day ñaan yàlla xëcc làmmiñ bi ba mu egg ci ay óomam yàlla mu ne in tahmilhu yalxas boo ko fekk day yalkat mel ne xaj bu mar xool kooku nu mu al ko waaw dafa dem bay ñaan rek ñu xëcc làmmiñ bi ñaanul gis ngeen ñu fuñ jëm ah tey aaya yàlla yi diine yàlla bi dañ ko jaay dañ ko partout foo dem alal moo tax kenn du respecté diine yàlla yàlla mu ne inna allazina gaa ñi nga xam ne yastaruna dañoo jënde bi ahdillahi digu yàlla allahu akbar lan lañ jënde wa aymaanim ak seeni ngiñ waat samanan qalilan njëggu néew nga yàlla yàlla moo dëgg xamul tax yàlla mu ne li ñu jëndee yëfu yàlla mooy njëggu néew bëriwul bëriwul ndax da ngay dee bàyyi ko fi poñetu àdduna la xaalis la alal ay terrain la waaw sëriñ bi de boo gisee mu nangul ñu ko ay terrain lañ ko jox wala dañ ko indil 4-4 wala dañ ko ah wala planning familial sëriñ yi nekk ci rajo bi di ko danganal ak ak ñàkk yi ilimaan yi ñu dem ñuy woote ñu ciy woote waaw da ngeen dem ngeen def ko dara nekku ci dafa am ñoo xam ne dañuy wax rek waaw di weddi am na benn waay fan yi téere la ci bind planning familial indi ay aaya di ko daganal waaw nee na yonent bi moo moo njëkk a daganal planning ñu ne ko ban hadis ma mu ne lan waxoon naa ko fi keroog waaye sama kado yi du dem tey waay mu ne boo amee ay doom yu bari te munoo leen a yar kon yow amoo droit am doom amoo droit am doom waaw waroo sax takk jabar yu bari mu ne bu ngeen gisee xale yi mel nii ci mbedd mi mu ne ñi takk jabar yu bari rek ñoom la seen doom yi yàqu ñoo am doom yu bon yi est-ce que loolu raison la loolu xel la loolu xalaat la ah est-ce que loolu wax la est-ce que loolu mooy dalil lan la yonent wax yonent bi ne tazawwaju alwadud alwalud fa inni mukaasirun bikum al umamu yawma al qiyama takk leen ay jabar tazawwaju la wax jabar yoo xamante ne ngeen bëgg ñu bëgg leen yooyu am doom ndax ëllëg man ak yeneen yonent yi dañuy xool kan moo ëpp xeet fa inni la wax mukaasirun bikum al umamu yawma al qiyama ma yonent ma wax loolu sallallahu alayhi wa sallam ah jàng leen alquran ngeen gis yàlla naan na ngeen fàttaliku ba ngeen nekkee is kuntum qalilan fa kasara fakas ba ngeen tuutee yàlla bëril leen tey ñaari kër bu ñuy xeex ñii nekk fanweer ñii nekk ñett man ñoo mën ñaari kër waaye dina am ñeenti jabar jabar yi ko nekk am juróomi doom kii am benn jabar ak benn doom ñaari kër yi di xeex ñan ñoo yóbbu ndam li ñu bari ñoo mën bu ñu baree góorgóorlu mais ñun bari bii lu tax ñu bari te duñu jëriñ mooy dañ ñoo nax mooy lii dañ ñoo war jaarale wuñ ci dëgg bi buñ ñu jaarale woon fu baax fu ñu diine sant kon sunu bariwaay bi dana njëriñ kon bariwaay bi du lislaam moo ko def yàq bi du lislaam moo ko def dañ ñoo jaaralewul fi lislaam bëgg ñu jaarale loolu mooy wax ji lu tax dañoo jaay yëfu yàlla tamanan qalilan njëggu néew poñetu àdduna ay kër ay terrain ay oto ay ay passeport diplomate yooyu moo tax njiit yi bañ a wax dëgg yàlla gi loolu moo tax njiit yi frenkulaa yi ci diine yàlla bi bañ a wax alquran ak sunna da ngay wax alquran ñu ne alquran dafa diis ah loolu wax dëgg yàlla dafa diis waaw dafa diis wala nga ni sharia ñu ne ii sharia dafa metti day dagg loxo loolu ngeen di dégg xoolal léegi peine de mort bi kan ma ko dindi Sénégal li mu yàlla ko al ko amoon na peine de mort boobu agresseurs yi wàññeeku woon nañ xoolal léegi tey déglu naa rajo am na benn xale pël bu am 13 ans boo xam ne bal lañ ko dóor ci dënn bi mu dee doon sàmmikat benn waaye ñëw benn bëkk ne bu sëriñ ñëw ne ko jógal fi ngay sàmm xale bu am 13 ans nga koy dóor balu pistolet jugal fi ngay sàmm xale bi ne ko jógewu ma fi mu génne calibre 12 rek dóor ko xale bi ci dënn bi xale bi ci saase mu dee benn dëkk bu tudd gaabu déglu ngeen ko si defem fajar bulletin première heure lañ ko jàllale kooku lu tax mu ñeme am fit boobu génne pistolet xale bu am 13 ans jëloo yar ku am 13 ans jëloo yar jëloo yar buy sàmm ah même bu fekkoon ne xar yi dafa dugg nag yi dafa dugg ci sa tool sax wala xar yi mais waroo ko rey mais kooku dafa xam ne du mujj fenn dañuy dem tëj ko fële di ko indil ay yaasaak ay ngalax pom banaana wala wala billaahi ñi ñu tëj ceeb yi xonk cur la ni lekk ñu ne leen indil ay banaana ay pom ñu lekk da ngay gis koo xam ne ah man de yéex nañ maa tëj man ba ma man ba ma nekk ci biti lekkuma lii wala fii ku ñu fi dégg sa mbokk tëj nañ ko boo koy seeti looy yóbbu da ngay dem jaar ci jaaykatu firime bi jënd firime bu bëri wala bu dee seen waa kër la dañuy togg añ yu neex yoo xam ne waa ji ba muy baka dara jotul kenn du ko toggal añ boobu nañ wax dëgg wala ñu koy yóbbul kooku nekk foofu ci biir est-ce que dina réccu du réccu nga xool am am fitu jël pistolet di ko timmale di xale bu ndaw di ko dóor su fekkoon ne bu ñu paree xam na li xam nga li la ciy fekk dañ la yóbbu fële ci poto bi ah takk sa loxo sa ginnaaw jël silaama dagg sabaat bi wallahi doo ko def mais di xale ba léegi dee na dañuy dem suuli ko waa ji ñu arrêté ko ñetti fan ñeenti fan barki démb policier yooyu bi ñu jàppee waa ji booy bi mbàkkee nan lañ ko def fuñ ko dugal ci maalu oto bi ci capote bi tëj oto bi xoolal nit nit comme xar xanaa xamoo ñun li ñuy def nii sax waruñu ko def jël xar di ko dugal ci maalu oto waruñu ko def parce que loolu sax du yëf du yëfu nit waxuma laa nag jël nit di ko dugal ci maalu oto maalu oto di ci dugal nit fu ñu jëm ñooñu di def loolu du mujj fenn lu ñu leen tëj lu mu bari bari ay deux ans lay nekk ñu génn wala ñu jëlee na ay avocat ñu génn nekk fii di doxantuwaat waaw suba bu ñu gisee keneen rayaat ko wala est-ce que sunu kaso yi am na njëriñ ñi ñu koy jàpp di leen fa dugal bu ñu génnee dañuy dañuy dañuy baax wala dañuy yàqu moo tax ci lislaam kaso amul lislaam amul kaso parce que kaso day yokk dépasse foog ñu ut fu ñu tabax kaso bi déjà perte nañ espace foog ñu ut financement bu ñu tabaxee kaso bi beneen dépasse ngoog ah foog ñu ut ñu tabax kaso bi dañ leen di fay foog ñu ut ñuy liggéey ci kaso bi foog ñu ut waa ji bandi bi ku koy garder ak ku koy raxasal ay duusam ak foog ñu koy taalal courant foog ñu koy indil ndox foog ñu indil ko lal foog ñu lalal ko ay mbaka foog ñu tegal ko télé muy seetaan te bandi la lislaam amul lool lislaam da ngaa sàcc dañ lay jàpp yóbbu la fee ci stade bi dagg sa loxo bàyyi la nga ñibbi doo sàccaat da ngaa rey nit dañ lay rey société bi daal di am jàmm dootoo fi nekk di reyaat keneen da ngaa agressé dañuy dagg sa benn tànk dagg sa benn loxo foo romb di raam ñu ne kii lu mu def ñu ne yée kii doon agressé nit ñi dinañ seen xel di nekk ci leneen lu dul di agressé ay nit l'islam amul kaso da ngaa def dan lay def nga dem ñibbi da ngaa jam nit dan lay yóbbu natt auteur bi nga ko jam ñu jox waa ji paaka bi mu dabbala ko foofu ba mu dugg nga ñibbi mu ñibbi nga faju ji mu faju ji da ngaa tuur bët ñu tuur sa bët nga dagg nopp ñu dagg sa nopp nga damm bëñ ñu damm sa bëñ est-ce que man bu ma xalaatee ne bu ma tuuree bët dañuy tuur sama bët dinaa tuur bët bu ma xalaatee ne bu ñu bu ñu bu ma daggee nopp danay dagg sama nopp dinaa dagg nopp nit bu ma xalaatee bu ma sàccee dan damay dagg dañuy dagg sama loxo bu ma reyee nit dan may rey dinaa rey nit xool leen rew xool leen rewane gi nekk Sénégal da ngay wax ak nit rek mu xaar ma ma ñëw yow dem jël jaasi nga dégg gars yi daan waay ma ngay ñëw da ñi ñi di daw kenn du àtte wala di mbedd mi nii da ngay wax nga gis ku toj butel daal ne ni boppam cër cër muy naaj nga gis mu ne nii di ñëw ñëpp di daw ñu naan waay waa ji moo sadik boppam la njëkk a jam dof yooyu mooy lan wala loolu di dëmm dëmmlu ñëw fekk waa ji taxaw mu rey ko ah sam yow kii kii du ma kii du ma bàyyi ma fen waa ji benn xale bu góor boo xam dafay indi benn xale bu jigéen ci benn kër ci benn néegu waay xaritam xarit bi na ko non bul fi indi jigéen parce que sama papa bëggul ko fi indi jigéen mu génn ko ci néeg bi yóbbu ko lan ci kaw immeuble bi nekk fa xale bu jigéen bi xale bu góor bi dama woy papam ne ko damay bañ nga gis fi jigéen dafa ne maa ko fi indi diw moo ko fi indi te ñu ngi ci kaw paa bi ñëw xool muy dëgg paa bi ne leen ci suuf ci biti xam nga waa ji nu mu def wàcc dem jël paakaam waa ji ah waa ji wàcc rek mu rey ko waa ji wàcc mu rey ko comme ça waa ji dee suuli nañ ko xoolal reewande gi ah kooku bu xamoon ni non mais mais fii lu fi nekk sabut bundu këru kii comme ça waa ji suuli nañ ko terminé léegi jeex na kooku dee na perte na wala lii anamu moom ma ngay lekk mi di mu ne ñëwul ko ah oh yow xoolal léegi ana kooku ki dee moom de kee anamu ñu ngi koy toog bulaa yañ di ko yekkal di koy bulaa yañ di koy bul fruit di koy bul jus muy muy muy muy muy naan jaaxaan nag waaw du liggéey du def dara te mu ngi lekk di naan yow ma loolu diine la koo waxal fii léegi ñaar ñett mu dem uti arme agresseurs yi sax ay arme lañ yor ay pistolet la ñuy doxandoo bu ñuy sàcc nga insister ñu dóor la nga rot ñu fan lañ jëm loolu moo ko waral parce que kilifa yi ñoo jaay diine bi rek ñoo jaay dëkk bi kilifa yi ñoo jaay dëkk bi loolu kese la kese ñoo tax fi mu nekk nii am nañ juróomi nit ci Sénégal bu nu woon Macky Sall ne ko nangam day am loolu day am juróomi nit rek te yéen ñëpp xam ngeen seen tur ma leen bàyyi woon léegi ngeen wax leen buñ ko woon léegi nangam lañ bëgg loolu am waaye duñ wax parce que dañ leen a lowal dañ leen yàlla jubal yàlla nee na dañoo jaay seen dig bu ñu diggante woon ak yàlla ak seeni ngiñ lan lañ ko jaay samanan qalilan njëg gu néew wala yàlla ba mu ne wulaay ko ñooñu jaay seen diine jaay seen ngor jaay seen peuple laa xalaaqa lahum fi laaxira amuñu benn cër ci yàlla alaaxira allahu akbar laa xalaaqa lahum laa xazza amuñu benn cër wala nasib lahum fi xayrati alaaxira wa naimi aljanna allahu akbar yàlla nee na dencaluma leen dara amuñ ci man dara allahu akbar ku amul ci yàlla dara foo jëm nit ku amul ci yàlla cër ëllëg koo xam ne bi ngay dund la ne yàlla ne yaa ngi ñëw waaye fii amoo fi dara lu safara wala lii du diini loolu du alxuraan ma ko ulaayika ñooñu laa xalaaqa lahum fi laaxira yàlla ne ne dencalu ma leen dara alaaxira est-ce que xoolal lii rek lii rek doyoon na lii yàlla mu ne wala yukallimu la yàlla ne du ma wax ak ñoom sax bu lii demoon ne mu ne wala yanzuru ilayhim du ma leen xool yowmal qiyaamati bis yowmal qiyaama ñett la yàlla tegale ñett ñett benn bi rek doyoon na ñu ne yàlla nee na amuñ ci moom dara ëllëg waaye mu ne wala yukallimuhum du wax ak ñoom wala yukallimuhumullah yàlla ne du ma wax ak ñoom doyul mu ne wala yanzuru ilayhim yawma alqiyama yàlla nee na duma leen xool doyul mu ne wala yuzakkihim duma leen setal allahu akbar waaye kon lii alxuraan yàlla la ñoom lan la ñuy def ba yàlla ne amuñu cër àllaaxira lan la ñuy def ba yàlla ne du ma wax ak ñoom lan la ñuy def ba yàlla ne du ma leen xool lan lañ def lan lañ def ba yàlla ne du ma leen setal luñ def dañoo jaay seen ngor jaay seen diine jaay seen askan lan lañ ko jaayee thamanan qalilan njëggu néew poñetu àdduna alalu àdduna bu tuuti poñetu àdduna waaw da ngay gis dëkk boo xam ne xoolal man ngeen jongal jigéen dafa dagan wala diine daf ko daganal de jongal jigéen diine daf ko nangu mais Sénégal pen la pen la ku jongal jigéen dañ la jàpp tëj ci kaso bi te sëriñ yi ñoo ko signé wala lenn ci ñoom ñoo ko nangu buñ ko bañoon du am buñ ko bañoon mais xoolal ñoom ci seen bopp ñoo ko nangu dem naa dëkk boo xam ne ci Fuuta sëriñ bi xam nga fu ñu ko jaare jouru gàmmum gàmmu gàmmu dafa am gàmmu ñu ne ko benn délégation délégation bi ñëw lu mu wax ñu ne ko loolu koy am problème dañ ko indi ñu indi ceeb indi ndox indi courant indi yàpp lu ne lañ indi biñ ko indee ba pare ñu indi ay këyit ne ko léegi signeel ne jot nga affaire yi mu signé ni ngi këyit yooyu ñu ko indil na signé dafa signé mais jongal jigéen dañ koy tere ci Sénégal mu signé ko mu d'accord mënul lire français xamul nee nañ ko Thierno mu ne ñu ne ko ah heɓi commune mbino mu ne ñu ne ko signin ɗo kollira a heɓi mu signé sëriñ bi mu ne ñu ne ko liñ la waxoon du jot nga ko mu ne jot naa lépp ñu ne ko signel fii ndax dañuy dem wane ñu ne jot nga ko mu signé moo tax bi ko gars yi affaire bi commencé am mu commencé kaas gars yi daal di liir turam ci ñi signé ne loolu d'accord na ci mu ne man ñu ne ko lii sa signature mu ne ah ndeke dañ maa nax ah dañ laa nax parce que yaa tax ñu nax la yaa bëgg ñu nax la ñu nax la gouvernement loolu lay def te li tax dëkk bi mënuñoo nekk ay jullit suñu kilifa diine yi la kese mun bëggoon ñu jub rek ñu jub ñun ñëpp waaye dañoo dëgg alxuraanu yàlla bi nappaaje ko teg ko fële daal di sànni sunna yonent bi alayhi salaatu salaam indi seeni mbir daal di koy proposer nit ñi nit ñi daal di koy jël jàpp ci loolu du ci sonn bàyyi diine di nga gis koo xam ne du julli du woor du jàng alxuraan xamul diine lu ñu woote ne ko diine la mu dem lu ñu wootee bay mu dem lu ñu woote ci wàllu liggéey mu dem waaye bu ñu nee julli jàkk du dem julli ci waaw wala lool gëm loo ne ne boo liggéeyee fii rek boo dee da ngay dem àjjana liggéeyal fii rek boo dee dem àjjana li ma benn waaye doon wax mu ne man xam nga lan moo tax ma génn ci mbir yooyu ma ne ko mu ne damaa demoon bayi benn tool bi ñu demee bay ba 5 heures jot sëriñ bi ñoo toog ñu ne ko ñaanalal gars yi mu ne yéen ñëpp àjjana ngeen jëm mu ne ma ma xool mbooloo mi gisuma jabaru sëriñ bi gisuma doomam gisuma jarbaatam gisuma ci benn mbokkam gisuma ci ku sant ni mu sant ma ne dañ ñuy nax ma ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ndax àjjana ñooñu soxlawuñ ko soxna sëriñ bi soxnawul àjjana su fekkee kër gi ku ko raxas dugg àjjana buñ koy raxas kan moo war a nekk pee du borom kër gi ak njabootam ñoom kay ñoom ñoo war a jiitu nit ñi ñëw waaye déedéet ñoom dañuy aju ci kaw di ndékki di lekk yàpp nit ñi raxas buñ paree ne yéen ñëpp dem ngeen àjjana dégg ngeen ñu ne waaw loolu yomb na de bu ñuy bay tool yi doo ci gis kenn ci ñoom buñ paree ñu ne leen yéen ñëpp naan du ngeen àjjana ëpp ëpp ëpp ala aaju ju mën fu mu tiimoo la foo ñaati aljanna loolu ay naxaate la gars yi bu yemoon yeew àjjana koo bëgg a dugg da ngay jaam yàlla dañoo bëgg dugg àjjana bu la kenn jiitu jàkk première sàppi bu la fa kenn ëppale waaw diine bu la kenn ëpp lu baax lu mu def alxuraanu yàlla bii na nga xam lu muy dox loolu mooy tax nga dugg àjjana waaye dem fële di caaxaan bu ñu dee ñu xam ne yàlla moom moom moom aljanna suñu borom nee na ñii amuñu cër ci yàlla alaxira waaye wala yukallimuhum llahu yàlla du wax ak ñoom wala yanzuru ilayhim yàlla du leen xool yowma alqiyamati bisab yowma alqiyama moo mbokk yi ku yàlla waxul ak yow yàlla xoolu la lan mooy nekk sa mbir ah soo demoon ci kër di nga ne asalaamu aleykum borom kër gi xoolu la ndax di nga xalaat añ wuy leen ma nga ne asalaamu fëgg asalaamu aleykum mu ubbi nga xool ko mu ne nii tour tourné xanaa doo ne boo ñëwoon pour yenn si moom bu yowoo nga xam ne bu yowoo nga commencé tourné waaw xoolal ku yàlla waxul ak yow yowmal qiyaamati ñu ne déet yàlla ne li du la xool ñu ne déet yàlla mu ne wala yuzakkihim du ma leen setal du ma leen laabal ñu ne waaw yàlla kon looloon dencal ay laa yutahiruhum min zunubihim yàlla du leen laabal seen bakkaar wala yakfuruha anhum du leen ko baal ñu ne kon yàlla ñi looloon dencal mu ne walahum am nañ azabun mbugal alimun mu métti mbugal de laa leen dencal mbugal walahum azabun alim mbugal mu méttee méttee métti métti métti laa leen dencal kan mooy wax yàlla yàlla bu ne mbugal mu métti laa dencal ñii yaakaar naa ne kon ñu nu dox ñu war a xam ne loolu loolu lu wér la yàlla bu ne mbugal mu métti laa leen dencal wallahi bu nu doful ñu xam ne yàlla lim leen dencal ñun buñ ko gisoon rek dañuy dañuy seey mbëggalum yàlla xejul ci nit benn boroom xam-xam bu mag dafa ànd ak xaritam ci jamono taw ñu dem ci àll bi mu xiin asamaan bi di dënu melax yi di melax ndox mi di sotteeku léeg-léeg asamaan si xaacu dóor dënu bu garaaw borom xam-xam bi xool waa ji mu xool ko mu ne ko da ngaa tiit mu ne ko tiit naa kay mu ne ko pourtant yërmande yàlla mooy wàcc kon bu meree nu muy mel ah xaac yeeg yooyu yërmande la parce que ndox mooy wàcc mu ne ko pourtant yërmande yàlla mooy wàcc waa ji xool ko ci ak waa ne kon yàlla bu meree nu muy mel allahu akbar wallahi yàlla bu meree mbokk yi ñun ñëpp la ilaha illallah ah yàlla na yàlla mos yàlla bu nu yàlla mere yàlla noonu yàlla xiir ci boppam yàlla bu nu yàlla mere la ilaha illallah mbokk yi nañ leen yem fii ba suba ba samedi insha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الله أكبر